auzu billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabilumi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu téléspectateurs yi nga xamante ni yéen a baaxoo suivre seen émission bi nga xamante ni moom leen leen di jagteel saa su ne ci télé bu bi ñoomaan mbégte dellu siwaat tey ci beneen numéro waaye seet siwaat suñu xarit suñu sàng macha allah ñu gën ko xam ci Serigne Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan le marabout international bëgg a waxtaanee waat moom rek lenn ci xam-xam jagle naa ko askanu Sénégal rawatina suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre saa su nekk ci biir télé bu mag bi kon si Cheikh Ibrahima ñu ngi lay nuyu macha allah di la ziar waaye tam di la dalalaat ci biir émission bi macha allah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, bay taala ngi lay fay nuyoo mm-hmm. di nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yi di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaxal Basiir di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala guddal fanam te àggale ba mboolem naal yi ak yéene yi nga xam ni mm-hmm. yéen na ko yàlla may ko mu àggale ko di nuyu sama sëriñ sama wasila mm-hmm. sëriñ Basiiru Abdu Xadar Mbàkke di ñaan yàlla guddal fanam. Mm-hmm. te it may ko mu àggale. amiin yaa ba mboolem naal yi mu naal ci yoon wi. Mm-hmm. yàlla may ko mu àggale. di nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yi. Mm-hmm. di nuyu ñu ñu bokkal réew mi ak ñi nekk bitim réew mi ñëpp. di leen wax ne aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci nuyoo bu am solo boobu macha allah waaye ci siyaar bi itam ak ñaan yi yal na yàlla sama borom daftal ci dégg ak topp ak nangu te ñun ñëpp ñu bokk ko jëriñoo incha allah ci daraja yoon ci bi salaatu wasalaam fi ma bëgg ñu tàmbalee ko ci waxtaan rek mooy fi nga daanelee muy nitu yàlla wala ak sëriñ ndax buy ñaanal doomu aadama bi mën naa am certitude ci ñaan gi nga xam ne mi ngi koy ñaanal ndax dina jàppandi wala du jàppandi ndax coow loolu dafa bëri ci réew mi. Euh, ñaan moom. ay façon la. il faut ma xam gan façon ñaan ngay wax. ndax ki nga xam ne daa jóg di ñaanlu. yor loxoy neenam. yaakaar suñu boroom. jëm ci nit. ak ni ko lii kat dama ko soxla woon. ci yàlla. di la ci ñaan loo mu ni ko tàllalal mu tàllal mm-hmm. mu ñaanal ko mm-hmm. mu wan ko gannaaw dem mm-hmm. ñoom ñaar ñépp kenn ku nekk toog di xaar yàlla ñaar ñooñu ñoom dañoo war a xaar yàlla dañoo war a toog xaar yàlla toog ñoom ñaar ndax ñoom dañoo ne ci nawet boo xam ni amuñu jiwu yaa ngi dégg waaye ki nga xam ne daa yorub xaalisam mhm. solo dàllam mhm. ñëw ba ci sëñ Njaay mhm. ni ko man kat dama am aajo nangam bëggoon nga ñaanal ma ci yàlla sëñ Njaay ni ko yëkkatil nangam jox ma kooku moom day xaar résultat kooku moom résultat lay xaar de jamono buñ nee ko ñaan mbirum yàlla kese la moom ay wara ngay bëgg a dugg ba mu doonee mbirum yàlla lu ci tey génn nit ñi <laughs> yaa ngi bëgg a leeral de dama lu ci tey génn nit ñi ba ci am defal ma nangam jotee mhm. jox ma léegi ma defal nag ci la topp bu ma ca topp dëgg dëgg am mhm. waa indi léegi may jox koo xam ni daal dangay ngay ñaanlu mhm. te ka ngay ñaan loo joxoo ko dara mm-hmm. amul droit laaj ko dara mm-hmm. koo xam nag dangay ñaanlu jël la nga amoon nag la nga amul la nga mënoon ak la nga mënul dajal sa kaaka yépp jaay indil sëñ bi jox ko warul leer soo amee fu la jëliwaat ko tamay dëgg dégg mm-hmm. ñaan daa war a nangu kii ñaan nag. Hmm. su xamee li muy def. Hmm. loolu doonul ay problème am. Hmm. waaye ki nga def ni ko ñaanal ma. mënu laa ñaanal lu nangu mënu laa ñaanal ku la mënta ñaanal nag jëlum koy fay. dëgg ñi kon ñii fayeeku ñoom. koo xas ba fay ko sab xaalis xaar amatu ci. gis rek maa delloo loolu koy ci amul ay résultat yi gis li nga ko wax. maa delloo. kii fajet faj ba mu wér maa delloo rek. Mhm. su dee dañoo tënku ci dëgg. su cay caaxaan amee nag. Mhm. ay wax yu amul bopp ak amul genn kese mooy li nga ma ñaanal gisuma ko nga naan yàlla lay xaaral ak yonent bi lay xaar ba nga leen dee xaar nga ba ñoo waroon dugg ci loolu. ñaan ay mbir la. Mhm. yu suñu boroom di def ci kiy ñaan kooku amul jafe-jafe ñu nangul ko li muy ñaan. ndax li muy ñaan suñ borom ko digal baytaal. dëgg la macha allah solo boobu ndax coow li dafa bëri ci réew mi fi mu ne sëriñ su bëri wala ay réclamation day fay faral di am ci ñuy wax ni fi ne dañ doon ñaan ñaanloo nit joxe ci xaalis bu bëri waaye fi mu ne nit que ñaan lañ doon lañ ci doon séentu antuwul bu ñu ëlbati ko waat woowaat ka ka lañ doon ñaanloo mu naan leen waaw ñaan moom yàlla moo koy nangoo yu kenn xamul ba nit ñi daf ci bëri léegi seen xel yi xaw a tey ci loolu sax moo tax ma indi woon indi woon question bi pour bëggoon ci ay leeral ñaan yàlla moo koy nangu. Mm-hmm. lu dul ñaan yàlla moo koy nangu. Mm-hmm. waaye bu la yàlla dul nangul bul ñaan. <laughs> dégg naa olof. bu la yàlla dul nangul. Mm. mu leer ni yàlla du la nangul. Mm. ku la jox sa xaalis it da koy lekk rek ndax yow yàlla du la nangul. <laughs> lu leer <laughs> kon ñi yàlla di nangul ñooy ñaan ñi yàlla dul nangul nag. Mm-hmm. xàmmee leen leen. bul jël sa xaalis di ko jox ku yàlla dul nangul. Mhm. yow kay ba nga mënee nangu xaalisu jàmbur suñu sawaay nga ko mënoon a jox yàlla. dëgg <laughs> leer. waaye ku ne ci néeg nag xamu bunt ba fu mu féete. Mhm. doo génn mukk. lu leer nga nit ki bala nga koo génne ci ay xat-xat da koy tane. Mhm. te xam lan mooy xat-xat xam li ko ciy génne. door a séq ak moom. loolu mooy secret bi. jërëjëf sëriñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci leeral boobu amati na solo mucc naa yëpp macha allah rabi ñaareel bi rek xam naa fi may daal di dugg rek mooy euh, euh, dafay bëri itam ci réclamation yi xeetu ñi nga xam ne dañuy wax ni euh, soxla boo boo leen ne damaa am soxla nangam ñu ne faaw ñu dugg ko xalwatu ma bëggoon xam tey jii lan mooy njëriñu xalwa xalwatu ak ban itte moo sa mooy jar ñu dugg xalwa. waaw doomu aadama yi seen i yitte dafa wuute. Euh, nit dina ñaanlu ci feebar nit dina ñaanlu ci wàllu wërsëg nit dina ñaanlu ci ñàkk jàmm nit dina ñaanlu ci ñàkk doom nit dina am alal du ko mën a jariñoo yooyu yëpp ci soxlay doomu aadama yi lañ bokk waaye wàllu xalwatu nag moom nga xam ni nit ki ko soxla rek euh, ci ni aajoom toll noonu la ñuy nattee Euh, su laajee nag yenn tur yàlla yi ak yenn temps yi loolu la ñu ñaanu kalootu euh, faw ñu defal ko ki ko soxla waaye nag li tax euh, du ñëpp a ko mën a def la muy laaj ci condition ak lañ cay fere daanaka moo waral am ñu ko mën ak ñu ko mënul waaye képp koo xam ne am nga soxla rek li gënoon ci yow mooy loolu mooy ñu ñaanal la nga pare ca benn yoon. Mhm. waaye nag des fois la muy laaj. Mhm. ak euh, yañ cay soxla dëgg-dëgg. Mhm. moo tax ñëpp mënuñ ci am accès. waaye ak ñaan la rek comme geneen ñaan goo xam ni ndax ci soxla na jëm rek génnul soxla waaye taal. macha allah jërëjëf si Cheikh ci leeral bu am solo boobu ba tey bokk na ci tamit wàllu seet bëggoon naa ñu waxtaan ci tuuti ndax seet dafa am boo xamante ni moom la ñuy seetalee nit. wala nit ki moom dafay ñëw ci sëñ Cheikh Ibrahima rek ne ko damaa am bëggoon nga seetal ma rek sëñ bi seetal ko. Ah, yow réew mi Sénégal da nga fay xam ko mën a seet. réew mi ni ñu nekk. dégg naa fi ñu fiy woote woo ay seetkat. Hmm. ñooñu de xam nga dama laa waxoon ni la ñooñu ñooy waa wax sa xalaat. <laughs> wax sa xalaat bi. <laughs> waaw wax sa xalaat daal laa fi gis waaye kuy seet koo xam ne moom day seet fii ci Sénégal. day seet gisaguma ko fi <laughs> man nag wax sa xalaat bi ëmm ciy xalaat. Mm-hmm. <laughs> bu baax ëmm ciy xalaat. Mm-hmm. waaw waaye nee la. Mm-hmm. doomu aadama bu feebar. feebar bi wàllaatee. nga téye ko di ko faj. ba mu wér bu dootu wàll kenn. mu jaxasoog nit ñi loolu nga seetal ko moo gën a jafe nga faj ku feebar sëñ bi du jaaxaan de kon fi ne dama ne ak lafañ bu lafañu tànk ba lem def nii ni kuréel mhm. nga yor ko di ci defi pexe yi alxuraan di ci defi pexe alxuraan ba tànk bi tàll ñëpp gis ko faj moom nga ko faj. Mhm. moo gën a yomb nga seetu. maanaam fa nga jaar moom ba faj ko. Mhm. Mhm. boo fa bëggoon a jaar ak moom pour seetal ko coono bu toll noonu di ko ci borom boobu di nga ko ci am door mën a gis mbiram. waaw bàyyi taal nag xanaa doomu aadama ak ni mu toll. bu ñu la dañuy dañuy dañuy xooli mbiram rek gis ko. rapidement ak nit li ci di sekkare. boo àndeek sa xel xam ni yombul. seetu gën a jafe ak ñaan wax sa xalaat nag nee naa la mhm. ku amee xalaat man nga ko mhm. réew moo xam nga man man damay dégg sax ay wax sa xalaat sax am na fi <laughs> wax sa xalaat yooyu ak seetkat yi rek ngay boole ñoom ñëpp daal ci wax sa xalaat yooyu lañ nekk ba taal tubarkàlla na <laughs> macha allah si Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci leeral ba solo boobu euh, bokk na ci itam seetkat yi du ci bër damay gis ñuy wax ci wàllu sarax mais yow si Cheikh Ibrahima ak xam gi ma la xam gis valeur yi ngay jël di ko def ci sarax ma bëggoon nga wax ma njëriñu sarax ak nit ñi ndax selon seeni soxla ci nga leen di génnelee ay sarax wala ak naka la demee parce que li may gis suñu Cheikh Ibrahima di ko génnee valeur ci ci ci ci ci ay sarax moom dafa dafa dafa dafa dafa jéggi. waaw xam-xam ay fànn la. Mhm. dafa am ñoo xam ne dañuy jaar ci ay téere di jàng ngir xam. Mhm. am ñoo xam ne dañuy jaar ci turu yàlla ci leeru yàlla ngir xam. Mhm. noonu la demee nag mbirum seet googu ma lay wax daa am fooy jaar pour xam ko mm-hmm. mbirum nit tax kiy seet jamono bu mënee dem ba seet mën a mm-hmm. seet mm-hmm. du mbirum nit rek lay gis lu mën a doon lu am ci àdduna mën na koo seet ba xam ko yaa ngi dégg wàllu sarax itam noonu la dafa am xeetu xam-xam boo xam ni mooy dox ci wàllu sarax bokkut ak nag sarax yii nga xam ni dañ koo digle moom ni ñu def leen ko. Mhm. loola lu yonent bi digle leen ñëpp kenn ku nekk boo ko defee rek la la cay fekk moom alxuraan leer na ko yonent bi leer na ko ci hadis. Mhm. waaye bokkut ak lii ma lay wax nag nga xam ni. mbirum secret doomu aadama la boo xam ni jamono bu nekkee ci yenn xat-xat yi la ko ci mën a génn muy yenn sarax yooyu noonu. Mhm. faw nga am àgguwaayu xam loolu doo ko mën a doxal. faw nga am àgguwaayu xam loolu. ko mën a defal. ak booy boobu nag suñ borom la fa mën a yóbbu ak dimbalul yàlla kese kese kese yaa ngi mhm. ab sëriñ mën na laa yor jàngal la tarbiya la defar la ba nga pare mhm. jamono boo amee xam-xamu yàlla su ragalul yàlla ci yow mën nga koo dimbaliwaat xam-xamam yi bokkuñu mhm. man nee naa la fa ma fa fa fa fa fa ma suñ borom jaarale ba dimbali ma. Mhm. mënuma koo leeral ñu jàng. Mhm. waaye ñoom suñuy jëflante dinañ xam ni fi ma leen nii xalaatuñu fii ñëw mën ñu fi agsi. yaa ngi dégg. Mhm. Euh, sarax yooyu nag nga xam ni moom ngay laaj ci sama digganteeg nit ñi. Ah, nekkul ni man maay sabab rek ni lii la ñuy saraxe de. dangay tudd baay taala di doomu diw juddu at sàngam ñu xam loolu lépp boole ko dugal jël kurus gi def ñu ñuy def waaw boo wootee nag buñ la wuyoo nga ne ah dama indi mbirum diw sàngam ak diw sàngam ñu doon def nangam ak nangam. yaa ngi mm-hmm. Mm-hmm. daa am benn waay boo xam ni xaadim cuun ca Cameroun. moo ma boole woon ak moom ak kilifa gu mag. moo yor mm-hmm. wàllu Sonatel euh, kii Senelec ba foofu. Mm-hmm. li tax mooy tudd turam nag ci émission bi mooy day loo am rek. Mm-hmm. waaye bi mu ñëwee ni moom dafa am jenn alalam ju koy wan ginnaaw di dem te xamul lu mu ci at mi may boole moom yàqule na lu war man ñaar fukki camion yi trente tonnes ak juróom-ñaar. bii day pan bee disparaître yi def nii yi dis na relation yi gënoon a am ci yi gën a mag tamit yàqu keroog bi may bi may génneel sarax waaja la ma ko saraxeel dama tëdd ba guddi rek ñu ma diw sàngam mi ñëw ci yow sarax nàngam lay génne est-ce que sarax boobu lu ma jàng la diw sàngam mi ñëw ci yow mm-hmm. bu ngeen xëyee génneel leen ko sarax nangam Hmm. Hmm? bi ma génnee sarax bi matul juróom-ñaari fan président bi woolu ko. parce que est-ce que dégg bi. Hmm. loolu dafa am témoignage boo xamante ni si mën na koo témoigner moo tax ma leeral la loolu. wàllu sarax daal bàyyi taal. bala nga ko maîtriser da nga ciy am ndigal. surtout. baax na. jërëjëf. amati na solo loolu macha allah rabbi damay seetlu. Mhm. ñi moom ñi nga xam ne jot nañoo mos seen seex Cheikh Ibrahima Ndiaye. Mhm. boobaak tey ku ma ci wax fi mu ne wax bi nga may wax mooy waxi jaaro yi. te waxtaanoon nañ xamal ma ne ma juróom-ñaari xeeti jaaro laa yor yoo xam ne benn bu ci nekk ak la muy dox. Mhm. te la muy dox ma ne amu ne ma doon loo xam ne ay sikki sàkk ak demal te ñëw. dañ lay jox nga teg sa bët ma bëggoon nga wax ma secret jaaro yi ak jaaro yu juróom-ñaari yi ñooy yar ndax jaaro yi fi waaw léegi man loo fi nekk di limi tur yi jaaroo ndax fi ne. piraat <laughs> yi ngay bañ. waaw <laughs> dama naan jaaroo sàngam rek. ndeysaan. gars yi xëy suba ku nekk di commencé wax ndax wax naa fi ay cuuraay yu may tànn di liggéey. wallaay ku ne naan cuuraay ya tamit cuuraay yi sax fi ne nii boo leen joxoon xaalis mën ñu ko indi ci réew mi. ndax man cuuraay yi may taal daa xaw a seer tuuti. Mm-hmm. jaaro itam kasalika. Mm-hmm. waaye daal. bu dee bi dox ci wàllu commerce. Mm-hmm. mi ngi fi. Mm-hmm. am na loo ci xam yow. Mm-hmm. bu dee bi nga xam ne day dox ci wàllu kaaraange. ngi fi bu dee bi nga xam ne day dox ci wàllu yëkkatiku. muy wàllu nguur euh, te nag waxuñu nguuruk saayir kese. bu waxee nguur rek ñu bari seen xel day dem ci ay politique seen déedéet. mbégte mu jóge ci suñu borom rek. sax te sax dàq nguur la. bu jëm ci booboot mi ngi fi euh, show yi nga xam ni itam euh, moom la ñuy wax rafiixu darajaatil wujudi day yëkkati doomu aadama ci ci ci fànn bu ne mm-hmm. moom it mi ngi fi yooyu nag moom yëf fi mag la <laughs> jaaro yi waaw jaaro yi tam da koy leeral kilifa yi ndax tam mm-hmm. euh, man ni may doxee bokkut ak ni sa gaa yi xam mm-hmm. ndax des fois nga jóg rek yaakaar ne da ngay sëñ bi am li nga bëgg. fekk sëñ bi tam nekkul ni cuuj bu jóg rek mu mu yanu yóbbu di xam nga loolu tamit day daal di kii. de leeraalal sa gars yi tamit ni leen sëñ bi tam. dafa am benn euh, nu may doxee ak nu may demee am fu ko yàlla teg wax dëgg yàlla euh, ñoom it ñuy may sóoraale ci loolu bu baax a baax a baax. yaa ngi dégg. Mm-hmm. ndax des fois kat may wax ak nit koo xam ne wax dëgg yàlla. yem may ñaanloog yëpp dama koy bëgg a boole dajale def ko ci enveloppe rek jox ko di ko def li ko sax. ndeysaan saa jéggal naa la ñaan bi. est-ce que. baax na waaw macha allah. Euh, amati sa sol tubaarkàlla ndax li tax may indi ko dafa dafa dafa doy waar daal ndax la ci laxasu lépp dafa bëri fi mu toll nii ndax man fi mu ne dem nañ ba mujj gi waaw ku ne naa man jaaroo jaaroo man leen man mii di wax ak yéen daal fi na leen leer ba leer ni sëñ bi moom liggéey bi moom caaxaanewu ko kafewu ko ndax man mii di wax ak yéen takku ma jaaroo ndax. mënagumaa am jaadu xëy na bu woo jotee dina am waaye mënagumaa am jaadu waaye bokk na ci daal euh, jaaro yi daal fi mu ne moom sëñ bi mi ngi lëmbe réew mi man daal xam naa ne mi ngi lëmbe te maa ngi jot ay message di jot ay notification xam ne mi ngi lëmbe te xam naa ne mi ngi lëmbe waaye da nga koo tënk xaw ma piraat yi ngay bañ ñu kii waaye daal tënk ko daal waaye nanga woo yaatal ci jaaro yi daal jaaro yi daal la ma waxoon sama waa rek am na ko ma mosoo woo nag <laughs> xam naa ndaw lu soxla xaalis la rek <laughs> ni ma sëñ bi dama bëgg ci jaaro yi jaaro yi daal jaaro yi prix laa bëggoon xam hmm. ma ne ko am na six cent mille ba quatre millions. xam tam du mën a sori. Mhm. jaarab six cent mille ba jëm quatre millions. quatre millions du du jaarab kese. Mhm. xanaa nag ni la euh, foo joxe sa xaalis. Mhm. te gisoo lañ la fa wax demal nga jëliwaat résultat rek maa maa maa delloo rek. waaw man nag sama jaaro. bi ngay takk ak bi ngay déclenché du lu mat une semaine. yaa ngi dégg. Mm-hmm. jamono bi ngay takk jaar bi bi ngay déclenché du dul mat une semaine. parce waaw yi muy àndal it. Mm-hmm. yëpp moom ñi mu ko wax ci ay kanam ay écran waaye nag mm-hmm. nekkul ni dañ lay jox ay weñi kese. yaa ngi dégg. defalub jaaru nit rek des fois mu tëju ci fukki fan ak juróom-ñeent. dégg wax wala dégg wax bi. fukki fan juróom yoo xam ne ci ci ci ci ci raw rawxaan bi war a adapté wu ci jaaro bi lay lay lay lay lay xëcc te ma koo téye dafa mu juddoo ci aw tur yàlla ñu door koo mën a liggéeyal jëmm jooju boole ko moom nag ak nag nit nag su lay jox loo xam ne da di ànd abadan hmm. ah nga am ca coona ndax jaaro bi boo xasee ba takk rawxaan bi ci jaaro bi jàppal ni a ah, doon na jëmmi doomu aadama nga àndal de mhm. waaye ànd nga loo xam ni kattan gim am maanaam boo àndoon ak juróom-ñaar fukki doomi aadama ñu lay kattanal même genn kattan gi loolu nga àndal am na ko mhm. sama jaar yi wax naa la boo ko takkee bul dóorantu bul dóor mhm. bu dee da ngeen a waxante wala ngeen ngeen xuloo ba aalu soo ko dóoree moom problème ci gën a néew mën naa dey say loxo te mooy li ci gën a woyof. waaw mu ci gën a néew mën nga koo dóor teel mu ni këlëb sedd kuy waaw kilifa la. Mhm. sa kanam lu cool yu bari bari boo tàllee jaar bi ñëpp ñëpp ubbi ko ay façon la ci daal. Mhm. yaa ngi dégg yeneen nag duma ko leeral tax <laughs> damay bañ mu bari ay wax daal waaye. du ay jaaroo yi xale daal mhm. yëf la yoo xam ne yeneen yëf la. bëreegul ñu ko ñu ñu peeg sanri secret yooyu fii ci réew mi mm-hmm. waaw waaye daal la naara libaane yi nga xam ne dañuy liggéey ci commerce bu mag mm-hmm. ak indien yi ñi nga xam ne dañuy def ci wàllu billet avion affaire transport terre yooyu noonu ñu ciy liggéey ñoom mm-hmm. euh, loo leen wax ci jaar bi xam nañ bu dee ñu ne bitim réew gis nga leen di def commerce Euh, lu mu dëgër dëgër moom boo takkee jaar bi moom nee naa la marché ba nga nekk moom balaa kenn jaay nga jeexal. Euh, per bi est-ce que fii lay jóge ci réew mi. waaw per bi am na ay façon hmm. am na jóge fii ci réew mi yoo xam ne fii laa koy defaree mooy ndaw ndawaan yi. Hmm. waaye am na ci per yoo xam ne amu fi amul fii ci réew mi waaye am na ci yoo xam ne nag fii lay jóge fii ci senegal nii. Hmm. amul ci réew mii fii la ne daal fii lañ la koy joxee jaayee la ko fekk yooyu noonu waaw waaye benn bu ci am na tur am na sirru am na lu muy àndal waaye du jiwee ñu kese gi de nii moom nii moom defal ko tëgg ko nii jox la ne la moo jaar bi du loolu de mhm. secret baa waaw waaw noonu loolu lay demee baytal jërëjëf si Cheikh Ibrahima xam naa moom man tàmbalee dajale rek ut bu 600000 bi rek xam naa ni fi mu toll nii dana oyof ci man. waaw <laughs> waaw yàlla bëri na sutura bokk na ci sëñ bi fi mu ne xam naa ne ñaar yi ma bëgg a jeexale mooy nit ku ñu njabar. Mhm. nit njabar pire lan moo mën a toj njabar googu ne ci moom. njabar daal ci wàllu seytaane lay jóge. Hmm. Euh, nit ku taxaw nag ni moom duñ man jabaree du jàkk boobu dafa dajee kutub ñu ko man dëgg-dëgg hmm. Hmm? waaye njabar guñ dul dindi itam amul hmm. waaw dama daal kuñ mën a njabar ku mën a doon nga dugg di ñaanlu ci ku xam dara rawat na ci wàllu yàlla ah, la sàkku ci moom muy njabar ga dañ mën naa yomb ci yow ak njabar nag dañuy wax ni moo catayam bu nekkee ci nit te dañul hmm. matatul nit fii ak loola dañu buñ la catoo mën nga am problème yu tegaloo ci àdduna yi yoo xam ni hmm. yow da yaakaar ni lu ne lañ la defee fekk cata ci yow buñ la njabaree itam lii tax nag nga xam ne njabar nañ la dëgg dëgg dëgg mooy hmm. moom du yem ci ay problème faw mu ay feebar bokk ci xaw ay feebar bokk ci. Mhm. loolu mooy signe yi wane ni ak njabar la loolu. Mhm. Mhm. jërëjëf ci leeral bi xam naa ni beneen question bi tam du génn wet googu ndax mooy tey jii euh, dañuy gis dañuy lu ci bëri dañuy gis ni fi ne ci ci ci ci ci histoire wala ci ci ci ci yenn vidéo yi ci ci nettali gis nañ ni fi ne daanaka euh, mag ñi daan foowee si secret yoo xam ne maanaam jël jaan sànni ko wala jël bant sànni ko mu doon jaan nga for ko mu tàkk yëkkati mu daal doon gàllaaj wala xeet yu mel noonu est-ce que fi mu ne euh, seytaane mën naa soppaliku xeeti jaan ak yu mel noonu fi ne parce que xeeti soppaliku yooyu moom it dafa bëri léegi ci réew mi trop si. waaw euh, dégg naa sax ki yor parc bi ñu laaj ko question mu ni euh, jëmmi jaan moom dara mënu ko soppaliku <laughs> waaye wax jooju mu wax du wax ju am. Mm-hmm. yonent yàlla Moussa yàlla sànniloo na ko aw yat mu doon jaan. Mm-hmm. xërëmkat ya nekkoon ak Firawna mhm. wut nañ seeni morso tibb sànni def ko jaan mhm. fii ci réew mi am na ci ñoo xam ni guddi lañuy ñuy jub mhm. dañuy doon jaan di maata nit ñi di leen def yëf dañuy soppali ko jaan ay nit yu yooyu noonu äh, junne yi am na ci yoo xam ni dañuy doon jaan mat nit ñi yooyu dafa am moom na wax fi xam-xam ñoom rek waaye bu mu ci loolu. Mm-hmm. ndax euh, loolu lu am la. su ko defee nag euh, yooyu nga xam ni yu dangereux la jamono bu ñu joonee jaan ba laal la rek moom mën nga cee jëlee lu la naqari waaye daal ay xam-xam yu am la yoo xam ne doomu aadama weesu na foofu. Mm-hmm. nee naa la Burkina Faso. jàngee naa fa benn xeetu xam-xam boo xam ni koo ni am na ci àdduna da koy wedd fii gisu ko. Mm-hmm. wax naa la ko ni la préféré doy nekk foofu jàng nañ ma benn xam-xam boo xam ne nee nañ ma nit. Mm-hmm. su ngeen àndee mu dee ci seeni loxo bu leen neexee ngeen dekkal ko. Mm-hmm. yor ko ñiin fukki fan. bagage yi ngeen yor yëpp mu gàdd ko ba ngeen àgg fa ngeen jëm muy door a muy door a dee nag ngeen koy suul. Hmm? ñeen fukki fan. ñeen fukki fan ngeen gàddu néew bi ànd ak moom. def ci moom ay sekare moom. moom néew la ba pare waaye ay pexe ay xam-xama koo yëkkatiwaat mu doonaat nit gàddu bagaas yi. la jàng naa man wala dégg naa <laughs> maa ngi xam-xam boo xam ni. Hmm. su ñu naan doon doon mbooloo am ko ci faatu. Hmm. suñ ko indee ci sama kanam man suñ jaay teg ko. ma def ci moom loo xam ne luy bagage ñun mën na ko yor wax dootu ko def. waaye jug ak toog ak lépp lu ñuy def mën na koy def waaw te ñeent fukki fan laa wax du yàqu def dara day ànd ak nit ñi di fonctionner te dee na bu yàgg koy aj rek hmm. waaye nag su ma tee fukki fan day tëdd faatu na yaa ngi dégg yooyu jàng naa ko burki Burkina yi seen néew yooyu ngay gis ñu leen di taxawal tiim leen di waaye ko tëgg ñu taxaw duñ daan wala ñu toog bi ñu daanoo ko def yëf. xam-xam mhm. a koy def. def ko néew Sénégal seetaan ko. moo tax boo génnee di jàngi. Mhm. xeeti xam-xam bu ne ngay jàng. Mhm. mooy tax nag dangay ngay boo ñëwee ci réew mi da ngay xaw a wuuteeg yii fi ne yu teer yi. ndax senegal jànguñu xam-xam. kamaatara la ñuy yor ay fooy yuñ doon te kenn ku nekk di wax woo xam ne xasasun sa xasan yoo xam ne doo xam sax lu mu doon <laughs> di werd lu nañu bëgg koo werd loolu bëgg te xam-xam mhm. xam réalité la buy fonctionner ci yoon wi muy jaar soo gisee nag ñu ko xamul reer jàpp waaye réew mi lii fi ne nii ci ay kéet ñu koy yor di bind ak xatima ko sol bi nga xam ne mooy doxal àdduna bi mhm. boobu moom ku bëgg a xam di nga génn réew mi abandonné kamatra yi te jàngi da nga wax bi mhm. loolu rek laa la ci indil comme leeram macha allah kon day mel ni kon fi ne daanaka rek daanaka dëppoon na ak sa sa sa sa sa sa suñu jotaay bee weesu la nga doon wax maanaam fi mu ci sàkku xam-xam wala uti ji xam-xam jar naa sol daal li weñ dox ba Chine ngir mën koo am bi ngay sant mun taxaa ci vidéo bi kon daal xam-xam daal sëñ bi fi mu ne moom daal mi ngi noonu daal waaw li des ci àdduna daal mhm. nit mënu cee jariñoo boppam te xamul dara il faut nga xam genn fànn door a dem ku xamul dara nag yàqu seetaan si rek yéen ci àdduna yow doo fi jariñoo doo fi jariñoo dégg nga xam yàlla ñu daal defal dégg ak topp rek <laughs> yeneen jataay yi xam naa nañ gën a leeral lu bari insha allah insha allah jërëjëf sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye ci waxtaan mu am solo bi waaye itam ci leeral yi macha allah li may faral di wax saa su ne rek sant la gërëm la ñaanal la yàlla suñu borom subhanahu wa taala dana gën a dëgëral taxawaay bi gën a guddal fan wi te gën a wéral cër yi ba mbooleem naa yi nga xam ne naalal nga ko askan wi sam-sam borom defal la ci lu kawe sax njortu tam fekkee ko ànd ko yow ndax nee naa man li may wax saa su ne rek soññ bi nga xam ne yaa ngi koy soññ doomu aadama bi ngir mu bàyyiwaat xel boppam bàyyiwaat xel li ko suñu borom jagleel bàyyiwaat xel itam suñu borom man nee naa bokk na saa su li may gën a neex jotaay ak yow ndax saa su ne day feeñ ci biir waxtaan bi kon dañ lay ñaanal saa su suñu borom dolli laa taxaw ba mboolem mébét yeeg yéen a yëpp la ko waaye itam sant itam bu baax a baax suñu bokk internet yi nga xamante ne saa su ne ñu ngi topp sëñ Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan ci waxtaan yi saa su ne buñ ko buñ toogee ay fan gisuñu ko sax daa di ko tàmbalee woote di laaj naan ànd sëñ bi xanaa dafay new loolu daa jàpp ak yu ni mel kon ñoom suñu xel du jóg ñoom saa su di leen ñaanal kenn ku ci nekk fa mu nekk lay bëggam ak mébétam ak yéenam yëpp yal na sama borom moom mi nga xam ne moo dul jeexal dara jàppandal lépp ci darajey Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam jox leen di daje incha allahu rabbi ci beneen jotaay ak sëñ Cheikh Ibrahima